amis téléspectateurs de la Sam TV ñu ngi leen di nuyu di de ziar di si dalal ak plateau Sam matinal Sam matinal nak doon na plateau ba nga wala émission sax ba nga xamante ni dafa dajale njabootu kër gi yëpp su ma nee njabootu kër gi yëpp euh, damay wax rek ñi nga ni nii ñoo bokk di liggéeyandox ñoom ku ci nekk desk bi nga yor dañuy ñëw toog fii nii daal di waxtaan saafonte ku nekk li nga def ci semaine bi di koy ñëw daal di def benn récapitulatif bu ndaw gaynde de to bi di xana ma bay rek sama natango yi nga xamanteni bokku na ak ñom place bu mi nga xamanteni mo yox suñu société bi di tamit ki nga xamanteni ni fanjay nga xamni dañ ko sonal lool ah ñu dal di nuyo rek ñu dal di dugg ci bitu sujet alaykum rahmatullah ah, nuyu naa leen chers téléspectateurs yi ni seetaan ak internet yi ni feulaw fu nek nak sa su ne dinu bëggee bëggu len ko dul Sam TV loolu rek dafa neex waye kat sunu boss mi ndaanaan bi ah mom mi nga xamante mom na rattacher direct ah màgget nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Abibatou nuyu mbokk seetaan à euh, international ba ci euh, Sénégal fii Sam TV di leen wax ne nag seen rubrique Sam Société ñëw na Sam Matinal ñu nuyu ñu bokk plateau bi ñu nuyu équipe Sam TV bi. nuyu naa ngeen ma dalalee si plateau bi macha allah euh, suñu xarit yi nekk ñu seetaan. di di nuyu suñu suñu caméraman bi di nuyu suñu DG bi di yóbbu nuyu bassin bi di nuyu sama yaay booy maa ngi di ko gërëm di nuyu sama tante tamit tey jii moom a yombal tey jii ba mu ne tata ba jën ko naan ba jën garawaay mu dem maa ngi koy nuyu gis naa seen message taxawaay tey ñu leen naan yéen ci Sam TV gaynde de l'actualité tey ñoo ñu ñoo leen masale dara merci beaucoup ci seen plateau Sam matinal ñu daal di dooree rek ak ki nga xamante ne nii madame Sall lañ koy wax ah ñu daal di waxtaan ak moom ci euh, actualité éducative de la semaine madame loo ñu indeel tey. xanaa mbokk internet yi ñuy seetaan ah euh, abibatu mhm. euh, école yi tam defaat ay grève mu doy waar loolu mhm. ñu ne déet waay Mamadou Talla tamit wàllum problème port voile bi nan ko baax

yow xanaa sa boos ngay ngay xas yow bàyyil di xas sa boos. sama jëkkër daf naan naay muuru waaye comme nag dañ nekkoon ci wàllu ñu xew ci sam éducation. Mhm. Mhm. Euh, mu nekk li nga xamante ni rafetlu nan ko torop torop torop. Mhm. ñu demaat euh, jógewaat foofu. gis ni euh, fraîchement 3000 enseignants euh yi nga xamante dañu dañu fraîchement sorti de leur formation ñu ngi leen di recruter. Mm-hmm. waaye nag loolu indiwaat tamit benen coow coow ci naka. Mm-hmm. na waxante dëgg. Mm-hmm. ndax kat euh, chaque année. dolli chaque année ñu indi ñu bees. mais ba tey le niveau est trop bas. hmm hmm Abibatou ah, ah, dëgg la yow mi nekk entrepreneuriat gis nga ko. hmm yow.

chaque jour di nga def ay fautes yo xamanteni moy mooy mais bo xolé tamit buñu ñëwé suñu rakk-rakkaat tamit dañuy def des fois ay fautes yo xamanteni c'est grave dalay leer ni yow peut-être da ngay def ay fautes mais li mom moy loolu té des fois c'est écœurant ngay fayal xalé muy jang muy ñëwaat

tradition scolaire. Mhm. waaw moom kat mu spécialiste en en en tout ce qui est euh, protection de l'enfant surtout pour les éducatif. Mhm. côté pour mon spécialité là bah mhm. ba maa ngi koy sax euh, si samay biir dire maa ngi ko naan euh, par rapport à loi de financement budget bi alloué l'éducation ça a remonté à 526,2 milliards. mais xoolal rien ren ñu ngi ko def 541 milliards. Mhm. mais man lan laa mënul comprendre chaque année. Mhm. budget bi di haussé. Mhm. niveau bi di gën a wàcc léegi man lan laay laajte. xale boobu nga xamante ni dafa victime de déperdition scolaire c'est-à-dire. xale boobu circuit scolaire am. du am chance continuer ko. continuer ko nga ko am tamit mais du ko continuer. si taxawaay. la njiitalu réew yi wala acteurs yi. acteurs Mhm. yan taxawaay nañ ci waroon am waaye sant yàlla kat mhm. ndax euh, ban ko interviewé xel dal na mhm. ndax euh, li nu naan euh, l'état fait bouger nous ñun ñëpp la on ne saurait être la politique de l'état alors que kon day am solo bi ma ko interviewé mu xamal ma ni yow Ndeye Fatou yow yow Fat bint bu ma la toppee tey li ñuy waxtaan dafa am solo tellement ba nga xamante ne nii waxtu bi ma la accordé loon jeex na sinon da ngay jël place ñëpp xam naa sa jikko man bëgguma aw bu mel nii man <laughs> ba tey rek mbokki Sam TV gaynde de l'actualité ba tey yéen a ngi ci seen plateau Sam matinal xam ngeen ni day faatu mii moom Fat Bintou sax laay wax yaayu yaayu mi nga xamante ne nii tey dama la bàyyi dama la bàyyi waaw <laughs> ba tey yéen a ngi ci seen plateau Sam ñu daal di jàkkaarloo rek ak sama sama jongoma mineur bi comme que ñun ay <laughs> présidente des célibataires laa ko tuddee Sam société borom Sam société Maguette <laughs> merci Abibatou merci ak team Sam TV bi yëpp li gën a fës nag ci semaine bi ñeel wàllu société bokk na ci euh, centre de redressement yi nga xam ne sëñ Modou Kara moo ko fi taxawaloon mm. lu yees sax am na ci ndax euh, ñi ngi ci jàppoon ñëpp ginnaaw ba leen yoon dégloo mm. euh, teg na si ñoom quarante-deux personnes yoo xam ne ñu ngi sous dépo de mm. instant bi dañ leen nëbb jant bi waaye li yéem askanu Sénégal nag mooy Pépé Diaw mi nga xam ne yoon da ko bàyyi mu ñibbiwaat biir këram ndax loolu moo ma jaaxal en moo jaaxal ñëpp daal di jël ki nga xam mhm. ne nii dafa am bras long. Mhm. Mhm. dafa dafay dafay ñi ne nii. jàpp nañ 42 ne me euh, ñu daal di koy bàyyi mu def mu waxal loolu. ah pourtant nee nañ moom laalewul ci mbir moom dafa able kër gi rek mais xamul woon kër gi pour lan la woon. amul woon ni ñooñu la ñu jot a dafa joxe raison boobu ñeneen ñi témoigné aussi ñoom dañ joxe raison boobu ni Pépé Diawo laalewul ci mbir mi daf leen abaloon kër gi juste léegi tamit wax nañ ci euh, papay Doudou Faye mi nga xam ni mardi passé yoon da ko teg ay daan ñaari atu kaso ko tëj yoo xam ni benn weer rek la ciy tëdd muy ma Mamadou Lamine fay ci rappel Mamadou Lamine fay moo nekkoon papay Doudou fay xale boobu nga xam ni 14 ans la amoon mm-hmm. léegi irresponsabilité des parents est-ce que foofu taxawu fa ah waaw nga jël sa doom yoo xam ne fukki at ak ñeent kese la am nga dugal ko ci gaal pour mu dem di émigré ji Espagne loolu moom c'est désolant. waaye itam màggat yaakaaroo ni xale bi euh, parents yi dañu nourriroon d'espoir ci moom. parce que mm. xale bi apparemment bu dee. juuma ci xale bi mooy xale bi bëggoon football. loolu football. ndax kat réew mi nag ñu waxante dëgg toll na mm. fi nga xamante ni ñun kat bu ne ñi ngi ndékki rek ñëpp a ngi ndékki. Mm. du dëgg ndax amaana xale ngeen xoolee ba ci biir. parent mi xam na ni kii kat buñ ko jàppalee mu génn dëkk bi mën na leen teral euh, suba donte nag mineur la deux cent cinquante mille nga jox ko xale pour mu dem Espagne xale boo xam ne quatorze ans kese la am est que tey boo investiroon deux cent cinquante mille yooyu ci leneen du la jural ndékki dañu xante dëgg nañu waxante dëgg du ma duma ma du ma ko waaye ba tey rek euh, màggat dañu seetlu dara bi Sénégal. Mm. da ngay investir mais la plupart du temps investissement yi day doon à perte. Mm-hmm. maanaam du am du am accompagnement wu état ba war. Mm-hmm. doy na waar daal. Mm-hmm. mooy ñii lépp rek parfois da ngay investir sa xaalis nga xam ne nit ñi dañ koy jël ba pare lebaat la ko ci suuf te dërëm doo ko encaissé waat xëy na tamit raison yooyu moo tax. defoon nga ko deux minutes résumé nag laa waa Abibatou waa Abibatou damay résumé foofu moom laaj damay des euh, damay résumé amul benn problème waa Abibatou jot nañ dem euh, euh, centre de santé ma de rencontrer madame Faye ñu doon waxtaane lu ama am solo mooy gis mbaax gis mbaax defe naa quatre-vingt-quinze pour cent ci jigéen ñi ñu ngi koy gis mais xamuñu mooy lan parce que parfois cycle bi. parfois cycle bi rek euh, compte bi duñ ko xam te madame Faye dina ci leeral yu ama ama solo ndax cycle bi premier jour bi ngay gisee règle nga koy compter jëm premier jour bi ngay gisaat règle muy 28 jours lay durer ñëw na tamit ci règle douloureuse bi nga xam ne la plupart jigéen ñëpp moo leen sonal. wax na ci règle douloureuse wax aussi ci recommandation yi nga xam ne moom la ñu wax na tamit ci âge bi nga xam ne moom la xale di tàmbalee di gis règle ak âge ménopause bi tamit. Euh, ki nañ expliqué nañu ci lu bari d' accord léegi pour gën ci am ay leeral rek pour ñi nga xamante peut être euh, sa émission dinañ extrait rek. Mhm. bu bu bu yem rek ngeen xaw a xool. Mhm. exactement Maguette euh, la mu demoon uti ji ci centre de santé bu Cambérène ba tey rek ci euh, Sam Madina Ndeye Fatou Ndeye Fatou la kal. <laughs> maa ngi fay maa ci jàmm maa ci xam nga yow yaa lu entrepreneuriat waaw maa ngi en trois minutes nga résumé ma Fatou Bintou moo jël temps bi yëpp loolu loolu ñëw ci Samba Matina c'est fini. man moom kon ni ko waxee sànq nii voilà man maa man maa yëngatu ci loo xamante lépp si mooy entrepreneuriat. di dem seeti ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi ñu yëngatu si wàllum entrepreneuriat tout ça. ñu leen dem di seeti ñu ñu partage seen expérience ak jeunes yoo xamante ni. yu bëri entreprendre surtout parce que vous savez le Sénégal tey ñun ñëpp mën a ñun ñëpp mën a amandoo liggéey. seen biir wax. Mhm. léegi ñoom jeune la ñoo xamante ni entrepreneur la léegi bu ma leen mënee définir un peu l'entrepreneuriat désigne le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. Mhm. ou bien l'initiatrice. Mhm. yow yaa koy créer sa bopp. nga dem ba uti lépp li nga koy ut rek afin de insérer yeneen jeunes yi tey jii. suñu première émission nag ma dellu ci benn daanaka ñu naan monsieur Dia monsieur Dia nag kenn dootu ko présenter suñu réew. mi ngi def université liggéey bu baax boo xamante ñëpp kontaan nañ si moom macha allah. wala ma-invité pour un fii on mu ñëw wax qu'est-ce que l'entrepreneuriat, entrepreneuriat mu ñu ba mu ne sax am ay entrepreneuriat différence entrepreneuriat yi pour bon mu ñu envie tout ça mais mon nit tam tout le monde ne peut pas être entrepreneur wax nañu loolu tamit mais ce tamit sama ma dernière sortie que ma def non avec j'ai invité un jeune aussi voilà merci beaucoup Raymond Ndiaye moom mu ngi doon yëngatu aussi wàllu entrepreneuriat social moom tamit membre si invitation bi na mm-hmm. ma dalaloon ci ki nga xamante ne nii première dame lañ koy wax ah, xam naa ni soo paree dag may fay ah, ak euh, Maguette mi nga xamante ni moom moo yor suñu société bi ak euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, faatu njaay Fatou nag dañ ko sonal lool xam naa ne di ñu baal rek tout le temps ñu ngi nekk di la sonal Fandiaye Fandiaye xam naa ne dama leen di bàyyi rek ngeen dem euh, daal di dem <laughs> yow moom yi xam naa ne monsieur mi ngi lay xaar. nga tàggatoo rek ngeen tàggatoo rek te bu ñu tendance ngeen <laughs> tàggatoo rek ma daal ma daal jëlaat ñeneen ñi ngay xamante ni nii tey jii nii man man groupe boobu laa bokk. ba tey euh, amis téléspectateurs et internautes de la Sam TV gaynde de l' ñu ngi ci suñu deuxième partie wu émission Sam matinal ma daal ci dalalaat ñi nga xamante man nee man ñoom ñooy sama waa ah, <laughs> di sama waa équipe. Oulimata nga xamante ni moom moo ñu yoreel mode et fashion mannequin bi Aïda Aïda Ba nga xamante ni moom moo def lépp li nga xamante ni ni aada la ak cosaan sama tool bu rafet bi ak sama doom jigéen bi nii nga xamante ni nii musique urbaine ngay def n'est-ce pas culture urbaine voilà ma daal di jox kàddu gi rek ki nga xamante ni nii mooy Aïda Ba di daal di waxtaan ak ci Ngoyane Aïda nuyu naa la Fatou fay naa la maa ngi profité waay di nuyu mbokku Sénégal ak mbokki diaspora di leen wax ni man ay d'abord maa ngi kontaan bu baax a baax teewaat fii nii Matinal la ànd ko ak sama ay naataangoo comme ni ko ànd ba di wax kan waxee suñu directrice bu ñaaw boobu nga xamante ne saa yu jagee itam moom la fa lay jaaree nuyu uñu naka ñaan ne moom moo fi nekk Miss Sénégal 2017 nekk xale bu am solo fii di jëre rubrique fashion mode sama naataangoo bii di jëbi ni nga xamante ne moom mooy la golden boy des animateurs merci beaucoup nuyu bu baax a baax a ni mi ngi def am solo xanaa di leen nuyu Sam TV di kontaan bu baax a baax den wax ne Sam Culture aada ak cosaan mi ngi ñëw na ngeen ko xaar man nekk semaine bi passé dañuy waxtaanee lay ay la li nga xamante ni moo di euh, sa sa sa émission aada aada ak cosaan da nga ko doon rek Ngoyaan nag ku ko xam-xam ne Saalum la dëkk. du dëkk mu nekk loo xamante ni dafa nekk lool jamono ji nag am na lu bëri ñi nga xamante ni ñu ngi koy commencé di def dañ ko décentralisé ndax am na yenn xew yoo xamante ni sax boo ko demee day gis Ngoyaan bi daal day daal di sañati waaw yaa ma gën a xam. Mm-hmm. léegi nag yow nga demoon seeti ci kenn koo xamante ne nii xale la

soxna daf ko doon ci wajuróom bu jigéen daf fi tegoon tànk bu baax a baax a baax a baax xanaa kay gàtt fan la jooy ci moom te dañ naan ne yàlla suñu borom moom bu soxlaa ñu koy ci barke Seydina Muhammad ba tey rek ci euh, Sam bu ñu jógee ci Aida dañuy daal di rek ci nga xamante nii moom moo di suñu mannequin bi nga xamante ne nii moom daa jël <laughs> Ouly Mata Niane mu dugal ñu ci mode et fashion nuyu naa la nga wax ma semaine bi rek lan moo xewoon ci ci mode et fashion Ouly. fay naa suñu directrice bi. Mhm. Euh, ñu ngi lay sant di la di bi mhm. nga ñu dalal tey fii ci euh, plateau bi. Mhm. Euh, maa ngi nuyu suñu mbokk internet yi mbokk téléspectateurs ngi à travers tamit suñu suñu bi. nuyaale samay euh, consœur Aïda ak DJ euh, Vini ñoom nuyu naa leen. Mhm. Euh, mhm. tey moom. Mhm. mode bi moom xam nga ak depuis feebar bi pandémie bi. parce que dafa xaw a standby lépp daal lu bëri. ndax instant yi man kee yu bëri seen tànk yaa ngi xasan. gën leen yéeg ci podium bi yu mel ni. talon yi <laughs> talon yi instant yëpp dañoo gaari talon yi. mooy loolu ndax pandémie bi. yi bi ñuy waaj a def lancement kiiwam bi Dakar Fashion Week bi mm-hmm. moom la ñuy waaj xam naa ni moom fii ak ay quelques jours rek dinañ génnee bande annonce bi incha allah incha allah boobaa sama mbokk matte ni si bëgg a présenté rek mën nañ ci dem posté ci incha allah euh, tey sa euh, semaine bi demoon naa defar émission ak euh, benn couture bu mag couturier mm-hmm. couturier bu mag fii ci Guédiawaye ci mm-hmm. sama amul trois ñëpp xamee ko ndaanaan bu mag mën a ñaw

Mm-hmm. loolu loolu mm-hmm. ñu euh, mm-hmm. euh, demoon nga seeti ki nga xamante ne nii mooy euh, Balla Fall Balla je me rappelle moom mi nga xamante ni moom moom Palen Couture moom nag moom moom moom moom mooy tailleur autorité yi man daal Balla bëgg naa ko <laughs> Balla daal. <laughs> macha allah déedéet kay. waaw waaw waaw waaw. kon lool loolu non non yi ngeen di def bàyyi yi ngeen di def. ci la bokk waaw. dëgg la. non Sénégal como dëkku fi ku mënul sañse dëkkul senegal daal gis nga ñi ñàkk mën sañse yëpp Saalum lañ dëkk lu leer laa lay dañ cee baaxaale tey mais mais dans le milieu de la mode. Mhm. Euh, les gars yi tax ñu mannequin ñu am tendance ci watu. mode. Mhm. d'habitude dañuy wax naan euh, mhm. léegi góor ñi ñooy ñi di mais en parlant de mode euh, Dakar Fashion Week je pense que ça a démarré aujourd'hui le 12. il y aura deux journées de présentation de défilé je pense que mode africain est dinañ je pense que Proud to be africain étant africain. Ah, Mm-hmm. donc qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en penses qu'en penses-tu de de de de de nga xam c'est vrai xam nga bu njëkk sax ay euh, mannequin dañ daan faral def seen des mm-hmm. wala ñu coiffé les chignon et tout. mais mm-hmm. léegi des gis ni gars dañuy ne sax day am des yu allah. ñu jël des

c'est vrai mais Didier des fois je vois que je vois que tamit euh, africa africanité bi daf si daf si daf si daf si euh, daf lu bari parce que yaa am na yenn yenn yenn yenn dëkk yu sore yoo xamante ni amaana si Afrique da nga gis ñoo xamante ni jigéen ñi ay boule à zéro la def wala nga gis jigéen yoo xamante ni dañuy wat Bob ñaari côté yi daal di nga gis ñu daal létt nii si digg bi dégradé ko dafa am ñu mu genre madame Sall gi jàpp leen. boo xoolee ñu koy def lu bëri doo sax dañuy jàpp waaw dañuy dañuy dañu koy xool ba pare avant ñu koy def parce que boo xoolee sax ci Miss Monde bi jàll bi ki gagné woon Miss uh, Sud Afrique je crois moom moo nekk Afrique du Sud waaw voilà donc tu vois affaire des men des ñoom ci ñoom benn point si uh, si kii bi daal ci podium bi dëgg la nañ ñoom sax buñu ko defee dañ kaw am ah, benn actrice ci tubaab bi waaw voilà donc man dama foog ni loolu. Mhm. moo leen di gën a poussé ba ñu ba ñuy ba ñuy wax seen bopp daal. est-ce que loolu man maa ngi doon xool ni sax est-ce que du ma jéem a def mais xam nga. est-ce que du contribuer à ce que léegi euh, euh, comme ça ay cheveux naturels yi wàññi parce que man sax man je pense que watu. waaw étant africaine moo gën a mais kawar tamit dafa rafet de jigéen tamit des fois. ma ni jigéen day muuru laa wax ma ni jigéen da ngay muuru laa wax. <laughs> <laughs> waaw. <laughs> Mm-hmm. gis nga maam yu njëkk yi dañ daan faral di lépp seen bopp ay renversé ay mugg mm-hmm. xale yi léegi ñoo ñëw sama genre yi di teg ay perruque di daal di def ay coiffure loolu c'est un peu typique à l'européenne ngeen baal ma nag mm-hmm. daa bokk mais dama ko xaw di rafetlu parfois man damay préféré jigéen watu moom ku nekk accessoire bi nga xam ne nga tànn seen choix la bien vrai que rafet na isa attier comme yow la di miss man dañu jël miss moom non seulement elle était black jigéen yoo xamante ne amuñu les moyens si ay défrichage di raxas seen bopp di daal di dem di coiffé wu di yooyu noonu amuñu sax nit bu cheveux naturel instant bi ba léegi nii nii nii nii soo tegee perruque daal di dem cheveux naturel dañ naan ah ki dafa am xaalis pour man loolu noonu lenn la loo xamante ne à saluer dañ ko war a rafetlu parce que africain dafay def yëfu africain voilà valoriser suñu kii marqué sa identité nga xamante ne par exemple suñu gisee Aïda ñu ne Aïda kat fël la fël la nañ ko xamee takk garaw wala ñu te yaa ngi yaa ngi ëppalu eh, naan di <laughs> eh, eh, waxtu bi Mrs Mrs Danfakha man daal bëgg naa leen moom ak madame Sall bu xamoon nag ak benn célibataire bi ci plateau bi ba tey rek ñu ñëw ak sama doom yow mi nga xamante ne nii yow euh, tu fais la culture urbaine tey lan nga ñu indil. Il y a eu beaucoup de choses mm-hmm. qui sont dans la culture urbaine en parlant de rap, en général, de la musique en général. Qui nga xam mm-hmm. ne mm-hmm. mooy Samba Peuzzi génne na album, le 5 décembre passé, du coup de Sénégal Boy. Ku ko ku ko rejoindre mooy Ngaaka Blindé le 7 décembre, génne album tuddee ko Secret 7. Secret 7. Un album boo xam ne qui a qui a beaucoup de contenu. Les deux albums sax je dois dire. Sénégalais ñu ngi leen di comparer. Ngaaka Blindé mooy l'homme de l'année. fan. c'est normal donc loolu lañ bëgg tey waxtaanee fi nga xam ne ak ñaari bees ay xeetu feeñ yu bees donc mu def liggéey bu am solo tamit ci émission mm-hmm. ah, mm-hmm. ah, ci am solo mm-hmm. chaque jour mu ne ni ko gis man mi koy wax sax ndax gis naa ko dégg laa ci am comme yéen des uh-huh. euh, réalisations yi nga xam ne mi ngi ci au sein de

hip hop rap lay doon 100% rap. te aussi c'est un album qui a beaucoup de thèmes. yoo xam ne si lu am solo loo xam ne société bu ko dégloo. dina dina si mën a jëriñu. waaw génération yëpp la wér mag mun na ko déglu. xale mun na ko déglu. mais soo xoolee. contrairement ak Samba Peuzzi. nouvelle génération bi ñoo koy cons. ngaa ko blende certes am na nouvelle génération bu koy cons mais mag bu ko déglu dina ci gis boppam. c'est un album boo xam ne secret set la tudd. Mhm. donc en datant de 2013 jusqu'à 2020. 7 ans mhm. sept ans de vécu. Mhm. juróom-ñaari at yoo xam ne. tëdd na ci kaso. dund na ci lu ne. dégg na ci lu ne. ndeysaan donc soo déglu album bi. man son bu ma si gën a marqué mooy. jour bu muy nettali bu njëkkee dugg ci kaso. son bi mu ngi tudd ak si kaso. mënoo ko déglu te doo am ay chair de poule. ndeysaan c'est une chanson boo xam ne. c'était autre chose. D'où mhm. l'album a sa propre originalité typiquement sénégalais. c'est-à-dire nga ko dalee bu ñuy wax album. Mhm. typiquement sénégalais c'est typiquement rap. Mhm. kon nekkul ne ñaari album yooyu dañ leen di dañ leen di comparer. c'est vrai. kii côté musical. ça être un album boobu ñu internationalisé mooy gën a yomb. waaw mais côté originalité. man ngaa ko bële laa ngay je dirais même que c'est c'est l'album de l'année. l'album de l'année le meilleur pour la fin. le meilleur la le meilleur album de 2020. pour moi.

Eh, eh, est-ce que xam nga ni yone na ma ci jouni kay len de ah, <laughs> xam ni Je ndax li nga Matinal j'espère que li fi xew semaine bi à l'aise amul amul amul comme ni ko suñu DG di ah, non mais comme ça voilà non stress lañ ko vraiment ñu ngi len di sante vous ñep di len vous ma directrice su kenn ñu ñëpp dañuy jàppalante waaw mottalante lool dong la on est une équipe te kii di équipe dañuy am esprit d'équipe donc yéen ñëpp waaw amul amul directive boo xamante ne dinañ ko joxe te fekk kenn du ko matal waaw ñu ngi sant bu baax voilà gis nga comme ni ko ni koy euh, kan moo koy faral di wax sax euh, madame Sall peccum liir bu neexee nday jaar tey ca mag waaw bu ñu fii soog a ñëw mënuñu woon sax bind article ah <laughs> voilà di koy sant bu baax a baax parce que dafa jël lépp mu teg ko suñuy loxo daxawal leen topp suñu ginnaaw chaque jour nag dina wax xam naa ba ndoxu gémmiñam bi jeex waaye nag di na na muñ daal voilà <laughs> ñu daal di daal di tëjee foofu noonu rek comme sama doom nu ko waxee euh, ñu daal di leen di jox dig daje ci beneen numéro beneen samedi incha allah Sam Matinal jërë ngeen jëf